mi ngi rampé di dugg ci biir dëkk bi ñu né déedéet du fi amé ndax Sénégal dëkk jamm la ñu ne nag euh, dinañ ko wax li ci am am ci kon bësu tay ji un an net après suñu nyutoge di ma takal sama sama ndig li sama ndomb mi nga xamantani mom la wara yoré yore commune padwa damay wax alhamdulilah ça veut dire que xex bi jaron nako ko ça veut dire que liñuy def bobu ba pour Sénégal jëm ci kanam

fas yéene nañ fi liggéey liggéey boo xam ne danañu fexe ba képp ku nekk di nga bëgg a ñëw dëkk Patte ci kàttanu yàlla donc euh, ma enchaîné ci cadre de vie bi ma doon wax wax rek ni li ñu bëgg mooy commune bu set commune boo xam ne ku nekk di nga xam fan la sa droit yam commune boo xam ni trottoir bi kenn dootu ko occupé de manière euh, anarchique commune boo xam ni oto bu nekk dinañ xam fan la war a taxaw ñu teg ko fa dinañ naxante danañu waxtaan ak ñëpp dinañu woote ci cadre de concertation commune consultation euh, naka lañ koy waxee communal bi nga xamante ni moom la ñu bëgg quartier yëpp ku ne am ku mu fa yabal ñu waxtaan ak ñoom waaye nag ci liggéey la ñuy jublu boo xamante ni population bi dañuy xaar ñu nangul ñu ko te ñu jàppale ñu ñu ñu mën a doxal di wax rek ni tam cadre bi ñu bëgg mooy cadre boo xam ne environnement dafay neex a dëkk mooy cadre de vie boo xam ne ku nekk di nga am wér gu yaram di nga am euh, jàmm ba nga xamante ni doon na ma dem feneen moy euh, at bu nekk danañu reboiser 5000 arbres ren mom mom bokk na ci li ñuy njëkk a koñ yëp ñu fexé ba mu am euh, garab ndax koñ am péex mais koñ rafet mais mu nek reboisement utile bo xamné ne dana am garab yo xamante ni danañu am jariñ ci biir kër yi. donc lolu nek na la li nga xam ni bokk na ci suñu ité bi mujj nak nga xam ne ci gëna a mom mom lañu bëgg ren ji wala ñuy jéxal at bi ñu relever défi bi moy liñuy waxé liñuy li connectivité dañoo tuddee suñu programme PADWA Smart City Smart City moy ville intelligente ville intelligente moy gox bo xamné ne kenn dootul laajte wala kenn dootul nek ci kumpa lépp lu xew ci biir mairie bi dinañ ko xam dinañu am site web bo xamné képp ku bëgg xam li xew ci mairie bi bo bëssé sa téléphone ding ko gis mais am nañu benn application bu ñuy créer bo xamné dañ ko tuddé ma mairie everywhere qui ci anglais sama commune fait fu ma mak mom sa poche sa téléphone di nga gis application bi li xew mairie bi PV de réunion yi di nga xam lan la xew so waré fay taxe xam nga fi ngay dugg pour fay sa taxe soxlatul ñuy yoni ay nit ñuy ñew di déplacer wu liggéey bi yenn donc dana am connectivité réeroo dootul amati ku nekk di nga xam li nga war a def te lépp it da ngeen koy xam parce que dara dootuñu ko nëbb bokk na ci li waa Patte d'Oie gënoon a jàmbat ñàkk xam li xew ci mairie bi moo tax fi mu nekk nii lu mel ni téléphone lu mel ni euh, réseau wifi euh, pour internet ñi nga xam ne ñu ngi fii liggéey ñu mën a am connectivité avec tout le monde mais même ci jardin public yi ñu bëgg a defar dinañ fa def ay réseau wifi yoo xam ni xale yi Patte dootuñu amati problème pour connecter yo daal mooy sunuy primaire waaw bon pour ce qui est des chantiers on fera d'abord l'état des lieux on ne peut pas mënuñu mënuñu wax lan la ñu fi fekk te xoolaguñu ko li leer ba leer mooy du ñu def chasse aux sorcières waaye nag balaa ñuy wax kenn dara loo xam ne def nañ ko danañu xool ba xam lan lañ fi fekk té buñ liñ fi fekk it danañ ko wax askan wi moy li may wax rek ci connectivité bi su ko defee ëllëg lu am rek dinañ xam ñun jëlee woon nañ ko ci point bi yobbu ko ci point benen jërëjëf merci beaucoup